waa mais sëfooru Tata yi seen njëkkante bi ñu nekk ci kaw tali bi ñoom lan la ñuy xaar pour arrêter ko kaso la nangu sa permis la lan la ñuy xaar pour arrêter ko te ñëpp ci teg seen bët accident bi léegi la ci VDN bi dugg na benn nit ba dugg taxi bi il paraît que rey na deux ma trois personnes selon ñi ko témoigné mais léegi li mën a xew ma ñëpp a teg seen bët ci njëkkante gi Tata yi nekkee seen ligne yi bu ñu jiitlantee ñaari numéro bu ñu jegoyowee la plupart dañuy njëkkante kon cela veut dire que seen système bi ñu liggéey baaxul léegi rey ci nit nii pour lan